waaw ñu leen fay baax sa kër waaw ñu leen sant yàlla. tey euh, lan nga ñu mën a wax ci bés bi. sant yàlla rek. di ñaan yàlla suñu borom bi xale bi nga xam ne moom lañ fi tudd tey yal na yàlla daf ko mag daf ko magam barke te yal na ko ñaari ay waajuram yar te may ko ay tëfu yu mbokkal ndey ak baay turandoo bi ñu ko tuddee lépp lu amoon ci wilaayatu ci barke ci daraja moom it yal na yàlla xaas xaasal ko xale bi ñu tuddee tey ci barkeen jaamu salaam salaam alors sa ñëw bi xaw na bett ñeen ñi ndax ñu bëree bare dañuy jàppoon yéen ñaar nekkoo leen ay xarit surtout yéen ñi nga xam ne ngi ci wàllu ñaan ñu su bëri taxaw leen ko jubóo trop trop tey bu leen nit ñi gisee fii lan nga mën a wax sénégalais sa diggante xaas man su ma digganteeg jullit ñi laa wax jullit ñi amul benn ayib amul benn jafe-jafe ñëpp sumay xarit lañu da fekk ne bu liggéey jotee na dañuy liggéey wax dëgg tekkiwul na nit ki noonam nga du sama noon du sama dañuy liggéey wax dëgg bi jotee ñu waxante dëgg suñ paree ñu àndaat ci jëmee yàlla ji loolu waaw suma kër la dina yu ndeysaan waa Sénégal yëpp DG Pam Ngeen Ndiaye ba ci madame Ndiaye ba ci ñëpp maa leen di ziar Vito suma xarit bi. yaa ngi sama subhanahu wa taala yàlla. nga ñëw da nga waaw temps moom xam nga coow dafa bëri. <laughs> man na ki ci di ko lijjanti di ko tàqarte nag tàqarte gi moo moo xaw a tag su ma ko tàqarte ba noppi rek ñëw incha allah. boo ñëwee Sénégal day leer xam nga Sénégal set moom réew mi ko bàyyi xel. incha allah taala dinaa fa ñëw lépp leer ci kàttanu yàlla kooku am problème. Mouhamed ma. chef fay nañ la ziar bi. ñu ngi sant bu baax. ana madame mi si bu baax. alors bu bu ñu mujjee gisante mooy fi nga ñooy xaas bi suñu di ñëw fële Pikine nga jooy fa nga jàng fa jàng yu rëy macha allah tey nga ñëwaat loo yëg. waa lu ñu yëg rek mooy santaat dañuy santaat yàlla ndax bi ñu fa dajee keroog lii lañ doon ñaan te lu mel nii la ñuy ñaanaat di leen ko ñaanal mu sax ci ñoom waaw moo tax ñu am mbégte tey. gis soxna Diarra da nga ko way way bu rëy album bu mujj bi ñu tuddee ko xale bi foofu itam loo ci. waaw am ci mbégte nag am ci mbégte lool ndax xam nga ni soxna si moo war a lépp li may wax naan yaa mat cin li te doy sóor mi reggal ngaa regg ku suur bay coow añub jaara koo xaar. Mohamed nag mooy soxna si moo waral lépp te sunu sang bi sëriñ Saliou amoon fu mu ko teg lool bëggoon ko lool sopp ko lool ba daan wax naan buñ ko tuddee soxna jaara ndigal lim ci daan teg mooy nañ koy woowee maam Bousso ngir bañ ko sàllalu soxna si moo tax biñ déggee tur bi sunu xol dafa sedd. xam naa nañ nañ la seet si ngeen waxtaanal ndax naa la woo la nga ñëw yomb jël la émission yomb lu tax loolu. non yomb na sax xam nga léeg-léeg. yéen xam ngeen liggéey bi nu muy doxee man book dama baaxoo su ma amul événement wala nekkuma ci programme du ma bëgg di wax parce que bu buñ leen bu ngeen ñu woowee wala ñu woo leen buñ ñëwee duñu am lu ñuy wax nit booy wax day fekk nga am programme loolu moo tax loolu. loolu bu sañ sëñ Saalu grand théâtre macha allah. jërëjëf Sénégal yëpp ñu. jërëjëf looy wax fans yi sant leen rek man aw may fans ay soppe laa am te soppe yi Serigne Saliou rek lañu ñu bëgg dëgg la nag. lu waaye def ci àdduna faa am ñu la bëgg ñu dul wax sax ci lu yàlla am nañ ñu leen sopp waaye ñun dañuy àndandoo maase benn cofeel la ñu am muy Serigne Saliou. merci beaucoup. jëmm joo xam ne référence la war a ci jigéen ah soxna Diarra de jigéen ju ne war na ko roy macha allah ñuy jéem rek di ko roy ndax jigéen la joo xamante ni moom kenn amul payam wax dëgg yàlla te mel na noo xamante ni daal. ah yéeme na daal xam naa ne ku jéema a góorgóorlu ci moom kenn du ko dab nag moom waaye ku ci xaw a jéem a cof góorgóorlu ci tuuti daal macha allah say mbir dina baax. ñu ñaanal xale bi mu jot barkeb turandoo. waaw ñu koy ñaan tur bi yàlla na wuyoo borom mu jot barkeb turandoo. Serigne Mbaye Sy Mansour ku dagg micro bi ma dagg buri buri ci ñu ngi lay waaw ñoo ngi lay fay bu baax sëñ bi ñoo ngi lay siyaare bu baax waaw teewaay bi tey dañoo ñëw ci tuddum suñu euh, xarit suñu naataangoo ci wàllu liggéey suñu mbokkum taalibe itam aussi di ku ñëpp xam muy Serigne Ablaye Diop xaas ndax euh, yaakaar naa moom turam daj na àdduna bi yëpp waxuma Sénégal waaye àdduna bi yëpp di nit koo xam ne nag euh, yaakaar naa fii ñi fi teew ñëpp mën naa wax ne dañ koy fay si bor parce que ku nekk rek am na lu baax lum la mës a defal am na lu baax lum la mës a te nag euh, as gor as gor moom buñ ko teralee suñ Sidi Moxtaar sama sëriñ moo daan wax naan kuy xeeb teraanga rek amoo awoo yoonu fay ko te xaas yàlla daf ñoo boole ñu bokk nekk ci dëkk bi bokk ci lu ñuy yëngut euh, mën naa am sax moom mu féete mag waaye nag euh, mu jox ma respect boo xamante ne nii Euh, mënu du ma wax ne jox ko kenn waay man xam naa ne respecté na ma bu baax a baax a baax loolu nag bokk na ci li tax moom man ma bàyyi li may def lépp ñëw euh, parce que bu dul dara rek man benn yoon sama yaay gaañu na ko mu jóge Dakar gi ñëw ca denc ba ñëw ànd ak man naqar wi yëpp ma ñaanoon nag yàlla yàlla may ko jàmm fay ko bis boobu moom loolu bokk na ci li tax ma ñëw euh, bokk na ci tamit bokk giñ bokk liggéey bi mu nekk nit koo xamante ne mën naa wax ne fu mu ci bëggoon a egg rek egg na ko fi parce que tey euh, amul amul amul amul kenn koo xam ne tey ci côté marabu gi ñuy def doo tudd boo ne benn ñaar faaw turam bu dul benn dina nekk ñaar te ay yooni yooni yoon bu donte nag ñu gisante bëriwul waaye su amee lu ma soxla ci moom muy xam nit ku jàppanteel wala wala wala lu ma bëgg mu mu jëflante ko ak nit wala dara wala kuy kuy am na ñu nga xam ne dañuy am ay jàng nañ ma ko waxal xaas wala dara su jógee ci man ma ma yónnee ndaw wala ma wax nit ma téléphoné ko wala dara su ko yëgee lu mu mën da ko ciy def ba ma xam ne day def kii selon ko ndax man voilà man man man am na ñu ma wax ñu dim mu dimbali leen te xamu leen mais man la xam ndax day am ñu nga xam ne dañuy ñëw ci man ne dañu soxla xaas ci nangam waxal ma ko nangam ma wax ko ko su boobaa bu dee lu ñuy laaj la day joxe ba joxe lu ko lu ëpp te loolu lépp euh, maanaam nite la ak mën a joxe cër waaw yoonu sëñ Tuubaa yi ñu bokk nekk te ñun lu dul sëñ Tuubaa itam ñoruñu gis ngeen ko mu bokk ci raar taalibe yi nga xam ne nit waxtaan na ci sëñ Tuubaa mu yëkkati oto jox ko ko te loolu tamit moom la dëkkee ak ak ak même bu dul ci tele bi même bu dul oto yi ngeen dégg fii ñi fi nekk ñëpp xaaj bi ay jànkatu xasaayit lañ xaaj bi ay tàggkatu yonant bi lañ ñoom ñëpp kenn ku ci nekk sol nga mbubbam ñii lekk nañ teraangaam ñii war nañ otoom ku mel noonu nag bu nekkee ci réew su amee bànneex ñëpp ay jóg yàlla tere bu amoon naqar tamit ñëpp ay jóg bànneex boobu mu am tey nag muy soxnaam soosu tamit muy soxna sumbulu mu koy tuddal doom tey loolu moo ñu andi waaw mu tudde ko soxna jaariyatullahi mariama busa Euh, ñi koy ñaanal mu gudd fan te wér te di ko ñaanal nag ci digganteem ak soxnaam si muy sumbulu euh, yàlla yàlla yàlla sàmmu leen sàmm seen diggante bañ dikkaat fii toogaat fii di maye soxna jaaram yi muy sëy ñu ngi koy ñaan ci barke yonent bi salaay salaam yàlla may ñu loolu